donte dañoo recalé candidature am ñeel élection présidentielle yu 25 février 2024 yi waroon am te ba fii amul ba tey njaw di desu xambin kenn xamul élection yooyee kañ lay am ba waral ñu daldi di tij ap ab national jëlee ko niki alterné ji ca fi nga xam ne moom moo di centre international bi ñu duppé Abdou Diouf ca Diamniadio waaye taxul benn yoon mu daldi di découragé maître El Hadji Diouf gannaaw lu ñeel wàllum projet de loi d'amnistie bi nga xam ne président Macky Sall mu ngi ko doon wax El Hadji Diouf nee na andu ci ci jamono joo xam ne dafa ne Macky Sall bu mu dugg ci ay waxu amnesty ndax dafa am lo xamne jotna xew ci rewum senegal mu di bakkan yu bari yo xamne ñoo fi rot jele ko ci mars 2021 ñew atum 2024 bi te ñoñe dafa am ay coupable yo xamne luy ngin ñom ñoy ñak rawati na wa parti Pastef bu Ousmane Sonko kon ñi nga xamne yon yoon daf len dal di daan ñu dugg ci bir kaso bi ñu war len atte nangul ben yoon president Macky Sall di wax lu jëm ci walum amnesty ndax bu ko dafa melni mayul cër ñi nga xamne ñoy ñoo ki ñoñe ci ñak sen bakkan maître elazi Diouf delu di xamne ne ñi nga xamne dañu len japp ndax jëf ju kon ñoñe dañu leen wara duggal dugal kaso te lo xamné rek mom moy daan yi war téggu tegu ci seen ndoddu dañu ko faa dawar di ngal ba mu mot sëkk kon mënta dégg ak Macky Sall ci fànn bobé maître El Hadji Diouf xamle né nitu fitna yi nga xamné ño ñoo nekk Sénégal fu Sénégal egg tay ci wàllum fitna ñom ñoko ko taal ñooñee xel mënta nangu sax ñu naan dañu leen di amnistie manam ñu leen di bay ñuy genn ba nopi musiba biñ fi def yépp ñu dal di ko effacer ci seenuk ndoddu su boba yàpp sénégalais yi mënta weesu lolu maître El Hadji Diouf ak kaddu yi mu yëkëti japp né ay kaddu dëgg lak nam ci ak Macky Sall yëmu fa ndax nee na fas yéene na cee xar tànk tubéyam ndax du seetaan benn yoon ñuy amal wàllum amnistie di ko jëmal ci ñi nga xam ne ñoom ñooy defkatu ñaawteef yi ci jamono joo xam ne moom maître El a Diouf ku mu gën a joxor bi baaraamu tuuma mooy Ousmane Sonko mi leader bu parti Pastef ndax ay jafe-jafeem tàmbale ko ci mbiru Adji Sarr ci mars 2021 ci la fitna bi jolli woon ba bakkan yu bëri rot ci gannaaw loole itam juin 2023 yeneen fitna amaat na fi ba li ci mujjee rek muy report bi bi ko Macky Sall annoncé niki aljuma yële ñu weesu daanaka fitna bu ci ndakaaru Saint-Louis ak Ziguinchor ba itam lu toll si ñeent ci ay doomu aadama ñàkk ci seen bakkan waral maître El Hadj jàpp ne lu ni mel nag day xaw a yomb trop ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo sooke boobu leeg musiba ñu daal di leen amnistie bàyyi leen ñu génn ci loo xam ne dañoo waroon tëdd seeni pen ngir fàttali nag président Macky Sall daal di woon na xamle nit ki altine ji ci njeextalu ko tàkkusaan bi nekkoon la ko moo di wàllum réconciliation nationale gannaaw ba mu xamle ne dina saisir assemblée nationale nit ki àllarba ji gannaaw conseil des ministres ngir ñu daal di amal benn projet de loi d'amnistie générale bu ko defee rek ngir ñu daal di mën a fexe ba jéggal mbooleem ñi nga xam ne seen loxo dafa ci manifestation politique yi am diggante 2021, mille jàpp